Adama Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. Adama Diouf nga nekk juriste juriste nekk chercheur en droit euh, ma lay laaj un peu ci affaire Ousmane euh, Sonko bi euh, verdict bi nga xam ne tribunal bu Dakar joxe na ko nee nañ dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ban jàngat déjà nga ci am mbir mi. waaw jërëjëf madame Moreau jàngat bi ma ci am comme Sénégalais yëpp nga xam ne nii démb. tribunal instance de na verdict ko dugal ci liste électorale yi boo xam ne ñëpp rafetlu nañ li nga xam ne moo si ñuul donc état du Sénégal par de son agent judiciaire mën na saisir cour pour demander ko moom que bi que ñi ñu si pour boobaa cour suprême aussi fan moom ak Ousmane Sonko pour ñu saisir. Euh, Cour suprême te Cour suprême une fois que ñu saisir ko moom it am na bés boo xam ne bés bu ay boo xam ne war na mën a saytu décision bi joxe verdict bi donc temps boobu yëpp day fekk ne délai bi dana passé par rapport au parrainage parce que 28 décembre donc plus tard war na donc déposer les listes et conseil constitutionnel mu mën a waaw loolu daal moo nga xam ne moo si moo si doy waar. donc avocat wu état bi am nañu 10 jours pour déposer recours bi. pour déposer recours bi waaw. d' accord léegi suñ ko déposé ba pare euh, conseil constitutionnel euh, cour suprême euh, ban temps la laaj pour mu mën a juger waat mbir mi. waaw bés boo ay la une semaine une semaine mu joxe verdict bi. waaw mën na ko confirmer ko mën na ko infirmer. Mhm. mais bi yoon da koy àtte mu jeex. waaw da koy àtte mu jeex parce que defoon na benn renvoi. donc dana saytu motif yi nga xamee ni tribunal Dakar si la sukkandiku pour confirmer décision boobu fekkee gis na motif yi kii avancé daal méngoowut ak yoon moom bu boobaa dina ko àtteel mu àtte ko ba pare du ko renvoyé ne lii la mhm. donc euh, am na ñu naan sax même bu fekkente ni sax euh, tribunal dafa jox dëgg Ousmane Sonko cour suprême noonu euh, même bu dee nañ ko fa delloo si liste électorale yi munuñ ko fa delloo lu dul si période révision des listes électorales maanaam beneen révision mais pas automatiquement loolu ñu si wax yoon lan la wax exactement. waaw xam nga fekkee cour suprême confirmé nu décision bi ne Ousmane Sonko na nga jox ay affaires ma yelleef na nga intégré. Mais période de réintégration, ouverture fichier électoral du Diotul, à moins qu'il y une révision exceptionnelle. ñu def ko pour mën ko google mais yaakooruma tey donc décision bi daanu ne confirmer nañ ko nañ ko réintégrer ñu daldi ouvrir le fichier effectivement daldi koy réintégrer donc il faut qu'il y une révision exceptionnelle pour qu'on puisse l'intégrer dans ce droit ci dugal ko ci ay kéem hmm. kon fi ñu toll nii lan mooy chance su pour mu mën a bokk ci élection yu waaw Ousmane Sonko moom na nga jàpp ne moom munu si bokk loolu man sama position la munu si bokk si ñaari mbir mbir bu njëkk bi mooy bi nga xam ne nii di ko yoon daan ñaareel bi mooy li nga xam nii délai bi mu am ak li nga xam ne nii conseil constitutionnel war na saytu dossier bi gàtt na trop parce que fii ñaar fukki fan ak juróom benn si weeru décembre bi conseil constitutionnel war na mën a arrêté les donc loolu mooy li nga xam ne daal moom daal di kii moo tax ma ne la bokk si kursi moom dana xaw a jafe trop si Sonko te chance yi dana minimum Mhm. ñu wax un peu ci affaire Barthélémy Dias parce que fan yi ñu ngi wax ni euh, mbiru Ndiaga Diouf bi dinañ ko àtteewaat ci euh, cour suprême foofu la ca boppam bu fekkente ni cour bi dafa confirmer euh, daan bi ñu ko daan mën na ñàkk mairie bu Dakar comme ni ñu révoqué woon xalifa Sall juridiquement est-ce que loolu dëgg la waaw wala déet Diouf. waaw waaw waaw loolu yoon yoon na ko madame Moreau fekkee cour suprême dafa confirmer décision bi ko condamné Barthélemy day ñàkk euh, postam bi nga xam ne moo nekk ci mairie Dakar bi bu boobaa état bi dana jéem a teg benn délégation spéciale waaw. donc kon li daloon euh, Khalifa Sall mën na ko dalaat. waaw mën naan wax ne bukki bi ma kon Khalifa moo koy yor loolu moom am na. foofu ca cour donc bi yoon bu demee cour suprême dafay juger mbir mi mu jeex. waaw da koy juger parce que cour suprême moom duutu atiwaat fee yi parce que fee yi ati nañ ko premier second degré. maanaam moom bu ñëwee day si saytu décision bi par rapport à la loi maanaam lépp lu muy atteindre day sukkandiku yoon. ne lii la. Euh, ñu wax un peu aussi ci candidature Bassirou Diomaye Faye entre guillemets jàpp nañ ni mooy plan B euh, bu Pastef est-ce que moom juridiquement candidature am euh, mën nañ ko bloquer au niveau du conseil constitutionnel. waaw mën nañ ko bloquer parce que Bassirou Diomaye Faye dafa nekk ci té té négandiku maanaam kenn jugé gu ko il faut ñu xaar àtte ki nga xam ne nii dañ ko téye ndé téye ndégal ñu ko koy buñ ko atewul kenn mënugul xam avenir am léegi nag si nga xam ne nii tribunal bu saytoo ba nga xam ne atte bi fekkee daan nañ ko loo xam ne nii matul six mois mën na bokk élection yi bokkee six mois si bokk moo tax moom it euh, comme kaw Ousmane Sonko rek ñoom ñaar ñëpp dañu nekk dans le même sac ah pourtant moom nee nañ euh, jugé guñ ko carrément daana guñ ko daan buy tax ñu ne euh, il a perdu ses droits euh, civiques ainsi de suite est-ce que aussi candidature am war nañ ko bloquer si si si fànn woowu. waaw ma ne tey tey ndégandiku la pour def tey ndégandiku amoo yenn liberté yi. Mhm. même fekkee droit mi mi ngi fi ba léegi mais liberté bi nga xam ne am na ko pour dem defi campagne yu amu ko te ki nu tey dañ la jugé. suñ la àttee tey dana la bàyyi wala ñu tëj la moo tax ma ne la ba léegi moom it dafa nekk dans un avenir incertain. Euh, candidature Karim Meïssa Wade euh, moom aussi euh, si ban côté la mën a amee blocage bu demee conseil constitutionnel Karim Wade. waaw li koy may chance Karim Wade comme ak Khalifa dem conseil constitutionnel maanaam mu at waan mbir mi annulé décision bi ko daanoon. bu boobaa tey dana retrouver ay droit am xam ne kii kat lii ñu ko toppee amut waane bu dul loolu fekkee conseil constitutionnel dafa ñu confirmer décision Karim du bokk ci élection yi à moins que assemblée nationale député yi ñu ñu voté benn waa d'amnistie boo xam ne dana ko mën a permettre mu dugg ci liste yi. kon daal danga nga bëgg a wax nii nii nii nii nii muy Karim muy xalifa bu ñu déposé seen candidature du jàll ca conseil constitutionnel. ah pour ñuy jàll day il faut que même changement yi ñu apporté si loi électorale bi taxul ñu mën a bokk taxul ñu mën a bokk parce que dès l'instant que ñoom yoon daanoon na leen ñu waroon a tëdd kaso am na luñ jot a tëdd leen li tëdduñu ko am liberté provisoire kon am na loo tey atte boobu tant que cour suprême artu si confirmé ko wala infirmé ko ñoom seen avenir ñoom it wax dëgg yàlla xaw na doy waar mënuñu bokk si cour bi ah pourtant de fi ñu toll nii Khalifa Sall mi ngi campagne ak ñoom seen ñoom jàpp nañ ni ah, dañuy bokk ci élection yi. waaw xam nga mooy li ma ba tey donc idéologique la psychologique la xam nga gars yi noonu ñuy def wax na la ñun mën nañ bokk waane ñoom xam na ne lii ñuul ci soow mi mi ngi fi koo xam ne yoon daf laa daam nga waroon ko tëdd kaso code électoral ne la lii kër boo ko defee lii boo ko defee doo mën a bokk ci élection yi donc loolu moom tant que euh, pencu ndaw assemblée nationale tant que prononcé seen cas am benn loi d'amnistie dul mën a ci dul mën a bokk ci élection yi. Euh, conseil constitutionnel ñu wax un peu si moom si euh, yenn conditions lay teg euh, pour wax ni kii mooy bokk kii du bokk lan mooy condition yoo xam ne vraiment candidat bi su ko remplir mën na njortu ni dina bokk ak yoo xamante ne su amee si dossier dañuy xam ni dañ koy rejeter lan mooy condition yi ñu teg ca conseil constitutionnel. waaw condition euh, condition yi nga xam ne conseil constitutionnel teg na ko maanaam ñi nga xam ne demoon na wut seen parrainage ak yooyu su ñëwee kenn ku si nekk bu déposé candidature am euh, conseil constitutionnel dana seet sa candidature jéem a xool ndax yow donc euh, wàccu nga ak yoon maanaam yoon lépp lim la teg candidature yi bu ñëwee benn bu ne da koy seet mm-hmm. jéem a xool yow mi nga xam ne nii yow yaay candidat bi ndax samonte nga yoon maanaam lépp li nga xam ne yoon moom la teg pour nga mën a nekk candidat ndax loolu yow matal nga ko parrainage bi nga xam ne ni aussi ñoom demoon nañ di ko wuti ndax euh, kii boobu na nu ko bu baax a baax maanaam condition yi nga xam ne yëpp conseil constitutionnel teg ko par rapport candidat bi par rapport ak euh, euh, donc la loi sur le parrainage bu boobaa nag mën na ko valider mais bu si gisee loo xam ne lu lay ayib la mën na invalider sa candidature d' accord kon daal euh, condition yooyu la euh, conseil constitutionnel teg pour mën a euh, valider candidature yi waaw wala déet. wala moom mën ko invalider waaw ma ki nga xam ne nii moom yoon daan na ko. Mhm. donc maanaam per na ay droit am civil civique politique au conseil constitutionnel bu ñëwee mën na fi rejeter candidature am. voilà ki nga xam ne ni wàcc naa yoon sur la loi sur la loi maanaam respecté wu ko bu ñëwee aussi conseil constitutionnel dossier boobu dana ko teg Euh, am na ñu ah. doon wax ni sax aussi Karim Wade bu fekkente ni dafa fay amande bi mooy milliards yi mu waroon fay euh, état wu Sénégal bu fekkee fay na ko rek dina mën a bokkul aussi loolu juróon na coow loo si mën a wax. waaw xam nga loolu aussi c'est c'est une de sanction bon li nga xam ne ni moom yoon tëjoon na ko ñu koy toppee lii alal jooju fekkee moom ñëw na ba def euh, transaction boobu. ah mën nañ ko ki ça fait effacer la de deux bu boobaa donc cour suprême mën na seetu si dossier donc mën ko réintégrer mën a bokk si course bi merci beaucoup Adama Diouf ci tontu bi nga tontu suñuy laaj en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf madame Moreau man maa leen di jaajëfal ak ñi leen di déglu ñi leen di seetaan fu nekk voilà ñuy fàttali ni juriste chercheur en droit merci euh, Adama Diouf